su ma xëyee benn jour ma gis euh, ñu ñuy convoqué ma xool immeuble yeeg 700 millions yeeg affaire man waaw man fan laa nekkoon dama naan man fan laa nekkoon man ba bi ñuy séddee lu mel nii man aw ma ci parce que man Thierno Lo hmm. aw ma immeuble aw ma terrain aw ma oto. waaw fii jii kër gi di Cyprès la man maa ko jënd avant may dugg ci affaire gouvernement. maa ko jël avant loolu bii laa ko jël di ko fay par par weer ba mat. 15 hmm. ans ana ana ba moo ma ko jox fii bi mu fi dëkk. boobu boo xoolee da ngay seen tali bële booba fii ay lëg ay guy rek moo nekkoon fii parce que fii dama fi teel dëkk si ñi fi dëkk dëkk laa bokk kër gën itam maa ko jënd avant may nekk ci affaire euh, gouvernement ñaari kër déglu ma ñaari kër yooyu man moom laa am moom laa am moom laa am moom laa am fii mhm. moom laa am ci gouvernement bi man ma yëkkati sama loxo ku dem cadastre ñu ne la Ablaye Wade may na Thierno loo suuf bi jëlal may naa la ko ku dem ñu gis na ne oto bi Abdoulaye Wade moo ko may Thierno Lo jëlal may naa la maag Abdoulaye Wade mosu ñu seq affaire xaalis bu dox sama diggante ak mosu la may dara Ah. sama baat ci kaw mi ngi toog di ma dégg. ñi mu nekkal ñi ngi may dégg. pourquoi loolu parce que Abdoulaye Wade na def na lu nekk mais peut-être que ku ko ñaanul doo demee ca man du ma ñaan man ñaan ci boppam laa mënta def foire baa ngi nekk suma wet biñ koy séddalee di joxe terrain yi gisoon naa ko bu ma si ñaanoon ñu jox ma ci bande verte bi bu ma ci ñaanoon ñu jox ma ci. tey jii bu ma waxoon tey jii dig may dem man buñ ma laajee man ci loolu li nga yor foo ko jëlee du ma ne Abdoulaye Wade moo ko may am li am que xëy na Wade est ce que du ñëpp est ce que si ñëpp lay ko na xam ne da leen may gratuitement comme ça gis nga di dugg si bi di ñëw fii yoruñu woon dara amuñu woon mm-hmm. ku leen xool xam leen mm-hmm. man damaa liggéey 26 ans soo ko tasanteeg Abdoulaye Wade li ma am lépp dama koo am avant Abdoulaye Wade sama alal sax laa jël def ko ci biir politique gu Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye daf ma jël dugal ma ci biir politique musuma may xaalis mosuma koo ñaan sama ngor ak nit ñi ma topp tax may jël ci sama compte courant associé di ci def sama rakk di ma jox ma di ci def samay xarit di ma jox ma di ci def ba boo demee Daaru Musi sept communauté rurale ya fa nekk foofa dem dañ leen machine wol bi machine diw bi mbalka bii moo ko fi def panneau solaire quatre villages yoo xam ne ñu ngi nekk boo xam ne boo fa dem ma nga am panneau solaire am télévision grand écran géant ñu fay def seen portable di ko fa chargé di indi seen moulin à di ko fa def moom laa fa def façon boobu mooy politique nag moo tax boo demee dama ko doon dem di ko def ci askan wi. donc man du ma politicien bu nga xam ne bi dama ñëwoon di servir ci république bi man dama doon ñëw di servir la république lépp lu ma am dem séddoo ko ak nit ñi ca yëdde fii dama bëgg sax ay journaliste ak léegi waa Yann Amar am na benn jour dama wax sama benn conseiller chef de cabinet euh, ma ne ko man dama bëggoon nga dem nga wool ma Yann ñu ñëw ma ànd ak ñoom ñu dugg oto ñu dem wër les sept communes rurales de bu ñu dikkee bu ñu duggee benn communauté rurale boo xam ne bii duñ fa fekk machine u dëwlin mbaa ñu fekk fa jàkka ja mbaa ñu fekk loo xam ne man maa ko def ci askan wi foofu mbaa ay panneaux solaires yoo xam ne maa ko fa def bu ñu dikkee man ma démissionné ou bien bu boobaa ñu xam ni kuy politique ci Sénégal man maa ci yées mm-hmm. ñu wërati ma ne leen ñu wër dem fële cadastre ñu laajte foofu laaj Thierno mi est-ce que am na un centimètre carré de terrain bo xam ne bi Abdoulaye may na ko ñu dem wër fu nekk foo xam ne fii daal am na ay privilèges yu ñu fa mën a tiire ci biir gouvernement bi bu ñu fa demee duñ gis sama donc sama àndandoo ak Abdoulaye di leen dong la woon mu jël ma parmi 12 millions de sénégalais ne ma naa ñëw pour ànd ak moom pour ñu liggéey ma xam ni fi muy dugal bu ma fa demee quel que soit système bi nu muy doxee man fa ma dénk su ma dikkee dina am loo xam ne lu bari man dinaa ko fa def loo xam ne dina ba ma dikkee dama liggéey ministère de l' environnement ba gars yi yëpp wax ne environnement mi ngi bougé mu jëlee ma foofu yóbbu ma assemblée nationale ma dem foofu lii ñu wax naan le code de l' urbanisme man maa njëkk a convoqué secteur privé bi ñu ñëw assemblée nationale ma boole leen ci commission yi pour recueillir seen seen seen seen ay opinion avant qu'on ne vote les ma def ko foofu di fa dox di liggéey mu delloo suma ma ñëwee ministère du tourisme et ñëpp gis nañu avancé yi ma yi nga xam ne fi la concentré naa ko fa li ma doon bi avec le secteur privé ni ñu liggéey ak ñoom ba ni ma fa jógee déggoo benn élément du secteur privé bu ma sa taxaw ci rajo ak ci télévision di saagaanteeg ministre bi maa ngi sànnante xeer mosu ko fa dégg. mécaniciens yi maa leen jël accompagner leen fii ñu wër Thiès Kaolack yépp pour que ñu regrouper wu en association. nekk benn regroupement parce que da ngay fekk ñoom quatre-vingt-dix mille association mm-hmm. mu bëgg leen a ci benn force boo xam ne bi ne daañu mën a fexe ba seen revendication ñu mën leen a jël en charge ci lañ commencé di leen wutal ay terrain fële ci booru Kër Massar ak affaire pour que ñu am fa seen garage yi ak itam pour que ñu commandé leen defal leen ay garage moderne mm-hmm. bi ma dikkee marchand ambulant dama doon liggéey ñoom ci association yi ba ñu dem bu dugal leen ci affaire yi nga xam ne bi ñu leen koy ñu jox donc boo demee fii Pikine les associations dama leen accompagner ci seen formation yi ñoon di def ak yooyu yëpp accompagner waa Louga ay affaire yooyu yëpp donc man li ma doon jël ci alalu ministère bi dama ko doon sotti ci biir askan bi hmm. jëluma ko di ko tabax ay immeuble jëluma ko di ko jënde oto parce que su ma ko dugaloon sama poche soo dikkee hmm. di nga ma fekk ci beneen kër bu dul bii nga ma fekk hmm. su dul su ko defoon di nga dekk fii suba bu ñuy convoqué ñu convoqué ma man mais man kenn du ma mais ñu ah. ngi a